alors les intellectuels sénégalais enfin ils se réveillent ils prennent position euh, dans le dans le débat ce n'est pas du goût des gens de la de la majorité la tribune des 142 euh, intellectuels et membres de la société civile a beaucoup fait a beaucoup fait jaser gis naa sax benn euh, ngay tooñ euh, notre notre confrère notre grand frère euh, Yoro Dia euh, le porte-parole du gouvernement Abdou Karim tontu na leen Abdoulaye Seydou Sow le ministre de l'urbanisme euh, tontu na Abdou Latif Coulibaly tontu na ñoom seen position mooy ces intellectuels là tamit dañuy verser euh, c'est des politiciens encagoulés euh, nanguwuñu teg seen loxo ci dëgg bi et donc j'ai comme l'impression que la majorité reste sourde à leur à leur à leur, appel euh, relatif à la libération de Ousmane Sonko yow euh, signé nga pétition euh, nan nga après est-ce, que après ça est-ce que changement am na est-ce que. c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'allégeance que mu nekk ay ministres que mu nekk des gens de la majorité présidentielle que mu nekk même des intellectuels qui sont dans l'allégeance qui ne sont même pas dans ce que j'appelle les libertés académiques mais c'est pas un problème et puis l'autre a dit c'est pas un problème de nombre il y a il y a des choses yoo xam ne pétition normalement ñi nga xam ne ñoo am loo xam ne moom mooy kii ñu ñuy déposer ko dañ koy au près bi nga xam ne ñii ñoo am pouvoir bi pouvoir bi bu ko amee mu am des gens yoo xam ne yii dëgg-dëgg sur le plan mondial xam nañ leen ñoom ci seen bopp sax c'est une fierté pour le Sénégal bu ñu nee Sénégalais lañ les gens comme Mbougar les gens gens comme Boris nga xam ne Boris peut-être léegi mu am prix Nobel de la prix Nobel de littérature sax yaakaar naa ko wala keneen wala Soyinka nga jël par exemple Robert Dossou nga jël les Mamadou du quand même tu dis tu te di bu fekkee ne tu es le pouvoir attends même quand conseil de ah président bala ngay kii de xoolaatal affaire bi ñu xool ko xalaat ko s'il le faut nga jël kii sax waa eh, eh so incapable qu'est-ce que rek ngeen waxtaan nga expliqué wu à la limite ñu expliqué la peut-être que loolu dina tax quand même c'est des gens yoo ni c'est pas n'importe qui c'est vrai que boo demee ba xàmmeetuloo c'est que man li ma li ma li ma li ma gis te jàpp ko on n'a jamais eu un pouvoir aussi anti-intellectuel ah